Yeah. Sénégal namoon nañu ko te bu yegsee bégal ñu kookala la numéro un Fallou Ndiaye borom Ndiaye production mbokk yegsi na collaboré ak kan ñu ne waa Fass Jom production mbokk yi Fass production ñoom ñoo nekk fële ca Fass Ndiaga diggante Sénégal ak Gambie dëkk yi nga xamante moo nekk ci diggante ba fa la Fallou jëm kenn ñu ne le 27 ak le 28 février teg fa mise boo xamante ne ni nee na lutte simple laay ba dana doon ci 1 ci wàllu wayu cosaan ak aada dana fa dekki de waaye ndax yëg ngeen ni Mor moom moo koy tëgg mbokk yi Fallou Ndiaye nee na dafay sargal Mo Gates Mo Gates mooy kan doomu Sénégal ba ci États-Unis di def lu baax te di ko jëf ci digganteem ak ay nawleem waaye ak kan doomu Sénégal bi nga xam moo indi ndam li kooku ñu ne Reug Reug mbokk yi Reug Reug Mo Gates ñu sargal leen bisu vingt 27 ak vingt 28 fan ca Fass Ndiaga Coy man mbay de ko ma fa dégg ne ma massa ay ca let's go Ndiaye production le numéro 1